سيدنا محمد ولا علي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 salaamun minallaahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu ñu ngi yeesa sunu njëbbal ak sunu taalibe ci mawlaana abdullahi wa xadim rasulihi sëriñ tuba xadim rasul ñaanal cheikh mouhamadul muntaqa mbàkke al bachir sunu borom may ko fan gudd ak wér ba yéen ñu am ci liggéeyal ko lislaam yépp mu def ko ni mu ko bëggee di ñaanam mbooleem ñi yëngatu ci l'islam di ci xey di ci gont di ci fanan suñu borom defal leen ndam di ñaanam mbooleem ñi jangale te leen nuyu suñu borom defal leen ndam ñaan suñu borom faj aaje yëpp dafa ñu tawfeex di nuyu ñëpp di siara ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawfeex di ko sàkku ci yéen tay nak la aljumhatu muy aljuma muy vendredi ñaar fukki fan ak juroom ñeent ci weeru tabaski di atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ñu yegsi ci tey jii muy ñetti téeméeri bis ak juróom fukk ak yent muy 354 cent yi nga xam ne moom la at ñu war a doon di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sulet weeru juróom-ñaareel di atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar ci juddu yonent Yàlla Isa alayhi salaam di juróom-ñaari fan ci Burjul Asad à Tour de Lion di atum junni ak ñeent téeméer ak benn ci ati biir yi ñu war a séentu weer wi tey ñuy ñaan fu waaye gis weer wi nga jottali ko nga jottali ko ngir ñëpp mën cee jot suñu numéro ba ci ñun ñii ñu mën koo siiwal wala numéro yi yi nga xam ne ñoo nekk ci commission yi ku ci waaye gis weer wi nga woo leen nga wax leen ko ngir Sénégal yëpp mën cee jot ndax séentu weer sunna la kon fu waaye nekk ci réewum senegal foo gisa weer wi rek nga woote commission yi nekk moo xam Touba la wala Dakar wala koo mën a woote man koo gis mu gis ko ku ñu mën a woote tamit ci suñu numéro nga woonu ci 78 111 03 67 mooy suñu numéro orange numéro Tigo bi 312 86 39 waaye gis weer rek mañ ko jottalee ñun dañuy fexe ba commission yi jot sentu wer nak sunna la ndax wer wi ci dañu dat kon tay moy 354 jours tay nak wer wi warna mana feñ bu fekke asaman ci set na bis bi tamit moy bis bi nga xamne mom mo motale at mi kon ñi sentu wer wi nañ ci baye xel ba ñu ko ci waxtu ñu ko wara sentu ko tamit ci gox yu bari julit bu sah, sa bu jont bi sawé nga julit timis génnal nga dem sentu wer ndax wéré biko yàlla bind yow ya tax yow jullit bi yow ya tax ci sa kay la yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqit lin nas la samsu yanbaqi laha an tudrika al khamra wala laylu saabiqu nahaar kullun fi falaki yasbahuna kon wéro jatt bi yëpp biko yàlla bind nit ñee tax rawat na jullit ñi wa xalaamaatin wa bin mu hum yaxtaduun yàlla ne dama fay def biddi yi pour ngeen di ci mën a sukkandiku di xam penku di xam weer yi fi ñu tàmbalee xam fi ñu yem man cee jariñu yeneen xeeti xam-xam yi dul jeex kon ku nekk war na séntu weer yi jullit bi fu mu nekk ne yëg ni yàlla lim bind moom moo tax mu bind ko bu ko ci kenn gën a sañ rawat na ab jullit rawat na weer wii ñuy séentu rawat na muy sunna sinante bi salawaatullaahi wasalaamu alayhi kon tey jii lañu séentu weer wi waaye nekk ci senegal na nga séentu weer wi boo jullee tiis ba nopp sunna la ci yow soo ko gisee tamit nga teel koo jottali koo ko mën a wan tamit nga wan ko ko kon tey weer wi war naa mën a feeñ ndax am na un pour cent virgule deux un pour cent virgule deux jant bi dana ko njëkk a sowee cinquante deux minutes waxtu yu gën neex a gis séentoo weer yi nag gën neex a gisa weer yu tey mooy dix neuf cinquante sept jàpp cinquante huit mooy juróom-ñaari waxtu ci ngoon bu amalee juróom fukki simili ak juróom ñett foofu mooy waxtu yu gën neex a gisa weer kon ku jullit bi ba noppi rek boo sëlmalee rek def say subhanallah alhamdulillah allahu akbar ba nopi la ci wara a tege rek moy dem sentu weer bo sentu séntu ba nopi looy agal nga agal ko ndax weer bi moom toogu fi di xaar dafa am waxtu ñu ko mëna sentu séntu su weesu mënatoo ko gis waye bo juddee mëna a fa di def ay law ay ay awrab ak yu mel noonu bala nga nopi tek weeru dem wala noddu timis jot ñu wara a noddu timis ñu ne fa di xaar la neen jant bi fu mu sowe dañoo war a noddu timis suñu julee dem seentu weer wi waaye boo yeexee julli timis boo génnee fekk weer wi dem loolu lépp ñuy seentu weer nañ ci bàyyi xel ñuy seentu weer tamit ñu bàyyi xel ne gox yëpp lañ ko war a séentoo tey weer wi dana yëkkatu ci jaww di toll ci duus douze degré kon warees na ko mën a gis science tamit li mu wane ne mooy weer wi tey mënees na koo gis bu ci sharia ru'yatu eh, eh, eh, al fiqhiya mooy wàllu fiq nag moom mooy gis ak bët loolu la loolu la ñu yonente bi digaloon su fekkee asamaan si set na xiinut niirut ñu gis weer wi baax na dañuy suba bu dee asamaan si daa wala mu xiin ba mu yeesu ci gis weer yi su boobaa la sunna digle mooy mottali fanweer waaye weer yi tey moom war naa mën a feeñ ci kaw ñu séentu ko nag ni ñu ko war a séentoo te séentoo ko ci gox yi séentu weer sunna la kon ñu bàyyi xel ci loolu war a séentu weer wi tey démb nag ñu doon séentu weer wi ci àdduna bépp waxoon naa leen ko kenn gisul weer wi amul benn réewu arab wala réewu musulman julit bu gis weer wi démb ci alxames démb 28 sulet kenn gisul weer wi àdduna ba àdduna daj kenn gisul weer wi réew yooyu yëpp muy réewu arab yépp ak seen taalibe yi nekk senegal ñoom tey dañuy mottal fan weer ndax dañoo tàmbali weer wi ci date bu jot dañoo tàmbali weer yi ci date bu jotut ben fan solet biñ def wéru tabaski moko doon ñom ndax ñom samedi lañ tabaski di juroom ñent fan ci solet di fukk ci ñom motax dembu ñu leen sentu wér yi réew arab yépp mam naka tan arabiy yi muy arabi saudi misra muy Égypte Tunis muy Tunisie Algérie muy Aljazair muy Algérie Qatar muy Qatar muy Qatar ak mboolem rew yoy yëpp ba ci Bahrain ba ci iraq ba ci Libye ba ci Palestine et cetera ak kurel yi nek senegal muy jamaa ibad Rahman yek euh wahabisiyek ta jamaa dini islamiyek ken gisul weer wi ñoom ñëpp tere seen te weer yi mom yonent bi nee na mënut a mat fanweer ci kaw bu fekkee weer ko ri dafa mat fanweer ñaari weer yi munu ñoo daje ci men ak di ndo wala ñuy matandoo kon tay la séentu bu njëkk nañ maasa sentu weer yi ku ko gis nga jotali ko ñëpp loolu moy sunna sunnatu bi sallallahu alayhi wa sallam kon jàppale mu aduna bi weer yi feeñagul fenn réew yi sentu won weeru dem yëpp muy réew monde islamique arab yëpp ak seen taalibe bi nekk ci réewu Afrique yëpp muy Sénégal muy Mali muy Niger muy Côte d'Ivoire muy Cameroun kenn gisul weer wi ñoom tey nañu motee fan weer suba ji samedi bi seen benn fan kon ñu bàyyi xel loolu ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawfeex di ko sàkku ci yéen di dellu di ñaanal Cheikh Mouhamadou muntaka ak mbooleem ku yëngu ci diine lislaam su borom dafa lan ndam ci li ngay liggéey lislaam di yeesal sunu njëbbal ak sunu taalibe ak sunu cofeel ci Mawlaana Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul di ñaan sunu borom dolluñ ci ak cofeel waxtu wu nekk saa su nekk sunu borom xeetal ñu ci ñoom ci moom gën ñu koo bëggloo ci waxtu wu nekk ak saa su nekk li feeg ñu ngi noyyi tamit ay taalibeem lañu doon ku ñu doon tënoon ñu murid yëpp di rey par benn du yàq dara ci mbëggeel bi ñu sëriñ bi kon yàlla ñu yàlla doole ci mbëggeelu ñu gën a bëgg Sëñ Tuubaa gën koo fonk gën koo yaakaar ci àddina gën koo yaakaar ci alaaxira Sëñ Tuubaa dañ ko yaakaar àddina yaakaar ko alaaxira moom rek nag du kaneen kon yàlla nañu yàlla doole ak cofeel ci moom yàlla na yàlla defar nawet bu baax ci mboolem Sénégal yi tey àdduna bi yëpp suñu borom lijjanti ko ci barkeb Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñuy ñaan ci barkeb Sëriñ bi yàlla faj aajo yi lijjanti soxla yi faj ràggi xol yi ak ràggi yaram yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu